والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد وسهلا وترحيبا بلا عدد لا زلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بقرى الطاعات والسدد يا شهر رب كريم فيك جادلنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bi muy bisub àjjuma di ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru baraxlu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom bayit yi ma ubbee waxtaan wi ku ci bàyyi xel da nga xam ne am na gan gu tedd gu ne ci buntu néeg bi di nuyoo te mooy gan gi gën ci gan yi ndax moo ko waxal boppam moo moo ne yaa xayra dayfin kon mooy gan gi gën ci gan yi gan googee mooy shahru ramadan al mubarak muy weer woo xam ne doy na rekk ci ay ngëneelam ñu wax ne mooy sangu weer yi ni àjjuma nekk sangu bis yi ndaxte yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam sayidu shuhuri shahru ramadan wa sayidul ayaami yowmul jumua doy na ci ay ngëneelam li mu wax ne su ramadaan ñëwee ñu ubbi bunti àjjana yi tëj bunti sawara yi jéng sheytaane yi ida jaa ramadaanu futtixat abwaabu ljannati wa xulliqat abwaabu nnaari wa suffidati shayaatin doy na sëkk ci ay ngëneelam li mu wax ne julli juróom boo ko saxoo julli gone ak moroomam loo ko def ci bàkkaar dañu la koy jëggal soo dee moytu bàkkaar yu mag yi aju mu june ak moroom ma soo leen dee jooxee loo fi def ci bàkkaar dañu koy far soo dee moytu bàkkaar yu mag yi waaye ramadaan jone ak moroom ma soo ko de woor dañ lay faral say bàkkaar boo dee moytu bàkkaar yu mag yi assalawaatul xamsu wal jumuatu ila al jumuati wa ramadaanu ila ramadaan mukaffiratun lima baynahunna ida jtunibat alkabair doy na ko sëkk ci ngëneel li wax ne doom aadama lépp lu mu jëf ci lu baax dañu koy ful yàlla soo ko defalee benn du benn bu baax du la fay benn bu baax da koy ful su koy ful nag gën jaa néew fukk la koy def gën jaa bari juróom-ñaari téeméer la koy def ba lu ko soob waaye yonent bi nee yàlla nee na ba des koor koor moom na mu koy fule mbirum boppam la moom moo ko xam ndax neena nit ki woor day bàyyi mu gën a bëgg muy lekk ak naan ak yu ni demee da koy bàyyi ngir sama jëm mu wax ne nit kiy woor su wooree ba ngoon dey na xam ne am na ñaari mbég ndax ku woor ba ngoon dog jot bu dee ci ndaw ku ndaay yu sedd yi féete féete nii yu tàng yi féete nii su boobaa dangay ngay bég waaye bis boo dajee ak sa boroom danga xam ne lebal nga ku am ku amuk fay te su boobaa bu la fayee dangay ngay bég mu ne kullu amal ibni aadama yu yudaaf alxasanatu bi ashri amsaaliha ila sabimiati dicfin qaala taala illa sawmu fa innahu lii wa ana ajzi bi kon sooy woor da ngay defal yàlla ninga nga mane ak ni nga toll waaye su fay dalay fay ni mu mane ak ni mu toll illa sawmu fa innahu lii wa ana ajzi bi lu tax yadacu shahwatahu wa tacaamahu wa sharaabahu min ajli lisaaimi farxataani farxatun inda fitri wa farxatun inda liqaai rabbi mu ne ku woor ba ngoon nag sa gémmiñ soppiku forox na nga xam ne foroxaay boobee moo gën a teey fa yàlla gëttug misk wala xuluufu fami saaimi atyabu inda misk kon koor li ma wax doy na sëkk ci ay ngëneelam mu bokk nag ci ponk lislaam juróomi ponk lislaam muy jën yi nga xam ne ñoo yanu mbaarum lislaam nga xam ne bu ci euh, bu ci bu ci bu ci bu ci sooxe rek lislaam sooxe koor da cee bokk ndax yàlla nee na yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun te damay wax ne nit bu ñu la santee ab liggéey wax la ne la liggéey bii ñu la sant nag santoon naa ko say nawle war ngaa laxasaayu ba say nawle duñ la man duñ la gën a jàmbaare sunu borom nag bu santaanee ab liggéey seytaane day laxasaayu sëriñ Malik Basin si rahmatullahi alayhi wa ridwanuhu moo ko waxoon yàlla bu santaanee sant seytaane laxasaayu nee na day laxasaayu fexe ba ku fasutoon dara mu fexe ba doo fas dara ku fasoon nag muy fexe ngir sa pas-pas mën a yolom kon nag yàlla santaane na santaane boo xam ne euh, mi ngi dëgmal fii ak fan yu néew moo tax ma ne gan gi mi ngi ci buntu néeg bi mi ngi nuyoo te doon ponk ponkub lislaam ponkub lislaam boobii nag ñi ngi ko farataal ci xeet wi ci atum ñaareel ak genn wàll ci gàddaay gi bi ko tedd ka ñëwee Madina ba am fi at ak genn wàll muy fukki fan ciw baraxlu ci atum ñaari ci ñaareelu atu gàddaay ci lañ farataal yi nga xam ne mooy koor koor nag imaam Malik nee na su ko ñaar ñu maandu gisee war nañoo woor ku maandu mooy kan ku maandu mooy ki nga xam ne day doon muskàllaf kon gone du wane weer ne gis naa weer wi day doon boroomum xel kon ku amutum xel lu ñu sukkandiku ci moom day doon góor day doon ku set wicc day doon koo xam ne eh, yamu baax baaxle mu ëpp fuuf la ca des lu baaxam daal moo ëpp la ca des loolu mooy nit ku maandu su ñaar ñu mel nii nag bu ñu ko bu ñu ko gisee dañuy woor wala mbooloo mu kenn xamul nu ñu toll wax ne gis nañu weer wi su ko defee weer yi feeñ bu feeree bu feeñee nag képp koo xam ne kii war na la charte yi daje ci yow su boobaa danga koo war a jooxe kii mu war nag ka jiitu te mooy ñi nga xam ne euh, yi may tudd mooy yi nga xam ne bu dajee ci nit kooram wér na bu ca des nag kooram wérut ba ci jëkk mooy day doon ab jullit kon ki doonut ab jullit ba noppi di woor day xiif ak a mar waaye du ko jariñ dara ñaareel ba mooy day doon boroomam xel ndax ki amutum xel su wooree bu ko nexee mu dem ba digg ba bëccëg su maree naan day doon muskàllaf ndax ndaw dañ ko ci tàggat waaye doonul warteef ci moom day doon ku ko man ndax ki wéradi nga xam ne su ko defee mën na caa jële ay coono kooka waru ko day doon ki ki nekk fi mu dëkk ndax musaafir su waree tam su wooree tam koor waru ko day laab bu dee jigéen waaye bu dee jigéen ju laabut ndax dafa tolloonub diggante ba mucc wala mu gis baaxam koor waru ko kon day laab yii yëpp nag su dajee la koy laytaay mooy yéene da koy yéene ndax innamal amalu binniyaati kon yi bu dajee ci nit ki su wooree kooram day wér waaye bu ca des rek kooram day des koor nag làmboo lu baree baree bari ndaxte am nay teggiin yoo xam ne ak yu ñu sopp yoo xam ne képp kuy woor war nga ko gëstu ba xam ko di ko bàyyi xel di ca góorgóorlu am na yu ñu sip yoo xam ne képp ku woor war nga caa góorgóorlu xam ko ba ko moytu am nay ngànt yoo xam ne képp ku mu dal ci sa kaw may nañ la nga nga bañ a woor kon kenn ku nekk war nga ko jéem a xam am na lu koy yàq loo xam ne kii woor war na koo xam ba di ko moytu am na loo xam ne itam ñu bari dañuy defee ne da koy yàq kon kii woor war na ko gëstu ba xam ko ba xam ne lii du yàqu kooram wàllu fay koor tam nit ñi war nañ cee gën a góor góorlu ndax baraxla wuy jeex na daanaka te da ngay gis ba fi ba fi mu ne ñoo xam ne seen borub daaw mi ngi ak ñoom wala sax seen borub daaw jéeg mi ngi ak ñoom te wolof day wax ne bor du am rakk waaye am na ñoo xam ne seeni bor moom am na rakk ba amaat rakk ba amaat rakk wàllu kafaaratam képp kuy woor war nga cee gëstu di jege imaam di jege ñi nga xam ne ñooy sëriñ daara yi ñu lay wax ne la soo defee lii da ngaa war a kafaara te sooy kafaara nii nii lañ koy defee wàllu litikaaf mooy jaamu yàlla googu ñu def ci biir koor képp kuy woor war nga koo gëstu ba di ko jéem a def xam ngeen sëriñ Muhammadul Murtada bi mu fi nekkee daa ngeen gis fukki fan yi mujj ci koor gi ñu ne sëriñ bi dafa nekk ci jàkk ji te fekk booba lu ñuy wax al itikaaf moom la doon def laylatul qadri itam képp kuy woor war nga cee bàyyi xel di ko dàkk di ko làmb te xam ne soo ko dajee rek xamal ne daj nga la ëpp solo ci weeru koor muurum koor tam buñ demee ba ca mujj ga képp koo xam ne euh, yaa ngi woor war nga koo bàyyi xel ba mën koo génne ndax soo ko génnee dana defar lu bare bare ci koor njariñ yi nga xam ne tak day njariñ yu ñu mën a jëli ci koor muy njariñ yu ñu mën a làmb daj ko ak njariñ yoo xam dañ koy yëg kon li ñuy làmb daj ko li ñuy daj ak li ñuy yëg njariñ yu bare bare la yoo xam ne danañ ci ñëw ci biir waxtaan wi incha allah bayit yi ma ubbee woon nag day bayit yu yéeme day bayit yu pësteefu day bayit yu daw yaram nga xam ngeen ne sëriñ bu mag bi ba mu demee ca tukki ba maa yomba ba mu fa demee koor ga ko fa jëkk a fekk ca la waxe woon bayit yi محمد رسول الله أشهد Absolutely. kon bayit yi nga xam ne moom laa ubbee woon mu yaa xayra dayfin fin bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi ba mu demee ci tukki ba koor ga ko njëkk fekk ma yomba ca la waxoon bayit yii te xam ngeen ne koor ga ko jiitu fii ci Tuubaa la ko defe ne ci biir bokk yi ne ci biir taalibe yi ne ci biir njaboot gi mu wuute lool ak koor gam def maa yomba wéet lool sori lool tumuraanke lool waaye moom bi koor gi jubee rek am na jàmm ju mu yëg ak xol bu sedd ak xel mu dal ba tax mu def bayit yi di ko teeroo gan gu tedd gi te xam ngeen gan su la dee seet si ñëw fekk la ca buntu kër ba nga taxaw di ko teeru xolam dana sedd xolam dana sedd ah, gan gi gi la fekk ci buntu kër gi nga di ko teeru xolam dana sedd waaye suy ñibbi nag soo ko bijjantee ba génn dëkk ba ca la xolam di gën a seddee loola mooy yaa xayra yaa xayra dayfin ataabil bishri wal madadi yi nga xam ne moom la teeroo koor gi fukki ba yit la ak ñeent waaye ba mu demee bay wori nag ba di ko bijjanti yaadal bushaaraati bil aayaati wa suwari mat na juróom benn fukki bayit ak lu topp kon mooy gan gi nga xam ne day ñibbi nga di ko bijjanti ba ci biti dëkk ba dana xam ne ngan gi sa xol da cay sedd noonu la sëriñ bi def wax nañu ne su Musaa ñëw nag day laxasaayu euh, dootu noppalu dootu dal ma ma nga ca koor ga ma nga ci alquran ja ma nga ca xasida ya ma nga ca ma nga ca bernde berndeel mbooloo mi di ko defee ci defin woo xam ne kenn mësu koo gis kon nag képp ku koy tuddoo képp ku ko sopp képp koo xam ne mbégam mooy sa mbég kon su koor gi ñëwee war ngaa laxasaayu def ci jom def ci pëstéef ba ñépp xam ne kii kat euh, mi ngi jéema roy sangam ba radiyallahu taala xam ngeen ne wax naa sànq nag ne koor dafa bari ay teggin yoo xam ne dañoo war a sàmmoon te ak moom ba ci jiitu mooy xadd te loolu neex naa wax ñenn ñi ndax nee na tasaxaru fa inna fi saxuuri baraka dee leen xëdd ndax xëdd am na barke kon koor bu ñëwee bu kenn wax ne man duma xëdd danga gis ko naan man duma xëdd waaye nag mënta ñàkk loo mos lu mu woyof woyof barkee nga ca donte ndox la barkee nga ca kon xedd te yeexe ko euh, balaa fajara fenk ak dog gaawe ko bu jant sooyee ak nag di ñaan ndax soo wooree bay ñaan euh, soo wooree bay dog fi ngay doge loo fa ñaan sunu borom du ko delloo dala koy fajal li saaimi ind fitrihi daawatun la turad bokk na ci teggin yi mooy nga fexe ba bay dogal mbooloo di wut ay ndogu di ko jox mbooloo am na ñu ci yàlla defal tawfiq ba su ramadaan ñëwee dañuy fexe ba euh, di jox mbooloo yi ñam ñu di ko jëfandikoo loola toyaabam kenn xamul nu mu toll bokk na ci ay teggin tom nga téye saw saw làmmiñ doo wax safaan téye say cër doo ci jëf safaan waaye kuy woor te lu ko neex wax lu ko neex lu ko neex def xadis ba nee na baya boobu mu dem añi te naan attaaya xam ne xiif day xiif ak a yàlla amu ca soxla man la lam yadaa qawla zuuri wal amali bihi fa laysa lillahi xaajatu fi an yadaa taamahu wa sharaaba bokk na ci teggi koor ngay faral di socc bokk na ci teggi ni koor nga fonk naafila bokk na ci teggi ni koor nga dundal weer wi ci jaamu yàlla di tudd yàlla di wax laa ilaha illallah di wax xasbunallah wa ni'mal ak lépp loo xam ne rek lu baax la ak nag di jàng alquranul karim ndaxte ku tedd ka nee na koor ak alquran dañuy ràmm ki nga xam ne moo leen làmboo koor day ñëw ne ay rabbi manaatuhu taama wa shahawaati bin nahaari fa shafi'ni fiihi koor day ñëw ne yàlla kii de maa ko tere woon a lekk maa ko tere woon a def la mu bëgg ci bëccëg bi kon tin ma ci alquran tam ñëw ni kii de maa ko tere nelaw guddi saa borom kon tin ma ci fa fa yu shafaaani na su boobaa suñ borom moo leen di tin kon daal loolu mooy li ñu ubbee ci koor gi te incha allahu ajuma yii ñëw ñiy toog fii ma toog danañ ci indi waxtaan yu gën a xóot waxtaan yu gën a euh, yu gën a yu gën a rafet waaye dañuy jublu nag ci xutba bi nga xam ne moom la imaam bi fas yéene jàng léegi ginnaaw bi mu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane weeru baraxlu dey mi ngi nii waaj na ba jekk bay dem weeru ramadaan mi ngi nii ne ci bunt bi di nuyoo kon nag nañu gaaw ñun ñépp di def def lu baax nit ki fii mu ngi dund di noyyi nay def lu baax te di ca góor góorlu nañu xam ne weer yu tedd yii nga xam ne loo ci defe yàlla ful ko ku yàlla baaxi ba nga fekke ko war nga góor góorlu gan gi ñuy séentu nag nee na gan la goo xam ne gan ganu ganug yiw la ganug njekk la mooy weeru ramadaan wi nga xam ne ci la ñu wàcce alquranul karim weeru teraanga la weeru yërmande la dañu xam ne weer la woo xam ne jamono yu ne ci biir weer yi mooy sangi jamono ji waxtu yu ne ci biir weer wi mooy sangi waxtu yi mooy weer wi nga xam ne nit ñu baax ñépp dañ koy yàkkamti mooy weer wi nga xam ne su ñëwee yërmande yàlla day teeru bindeef yi ñu jëngal leen seytaane yi ubbi leen bunti àjjana yi tëj bunti safara yi mooy weer wi nga xam ne moo gën ci weer yépp ci la alquran wàcc kon nag nañu fexe ba bu ñëwee nañu góor góorgóorlu bu ñu neenal wenn waxtu te ñu taataan yërmande yàlla ci baraxlu ngay raxase sa ndab ba mu set sa bagaan nag su ramadaan ñëwee nag nga taataan fas yéene ko duy bam fees xadis fa nee na ku woor weeru koor yem fa ko yàlla yemloo waggar la mu war a waggar nee na yàlla dana ko jéggal mboolem lu mos a def ci ay bàkkaar xutbam ñaareel bi mu wax ne ginaar bi mu sante yàlla julli ci yonent bi nee na ngeen laxasaayu te góorgóorlu na ngeen xam ne euh, adduna du kër te dee day bette nee na dee du ay caaxaan kon nag nañu ko waajal te nee na kuy tukki da ngay waaj waaye nag booy tukki euh, di waaj dangay waaje waajtaay wu am njariñ waaye fees dell ci bàkkaar diis gann soo ko defee sab dox du gaaw te itam sab dox du jekk nee na nañ nañu gaaw njëkkante njëgalul yàlla nañu gaaw njëkkante àjjana ji nga xam ne ni suuf yaatoo ak asamaan noonu la as noonu yaatoo te nee na ñi ragal yàlla doon dong la ko yàlla euh, waajal ñooñu mooy ñan mooy mooy ñi nga xam ne dañuy fab seen alal di ko def ci yoonu yàlla léeg ñu koy nëbbu ndax bañ gisal waaye léeg-léeg ñu koy feeñal ndax bëgg ku ci roy ak ñi nga xam ne dañuy jëllale ak ñi nga xam ne dañuy jéggale te yii mooy yëf yu rafet yi nga xam ne moom la yàlla bëgg mu ne kon yéen jaami yàlla yi na ngeen gaaw Euh, te xam ne jamono jii mooy jamono yi gaaw kenn wërta yaafus kenn wërta yox-yoxi nañu njëkkante tuub ci sunuy bàkkaar jamono ji mooy jamono yu tuub nañu xam ne jamono jii képp koo xam ne waaroo dootoo waaru ndax kenn ku ne gis nga lu la waar wala nga dégg loo xam ne moo la waar nañu xam ne weeru baraxlu weer la woo xam ne li ci ne ci ay ngëneel ak i tuyaabu kenn xamul nu mu toll ku ci sàkku njéggal suñ borom jéggal la ku ci sàkku leeru xol suñ borom leeral sa xol ku ci sàkku suñ borom sellal say jëf suñ borom dana ko def ku ci sàkku ngëneelul yàlla suñ borom dana la ko jox mooy weer wi nga xam ne sunu borom da koo laaf ci aw turam dafa wax ne shaabaanu shahri kon da ko laaf ci aw turam te sunu borom lépp lu mu laaf ci aw turam loola tedd na nee shaabaanu shahri fa man saamahu li mahabbati wajabat lahu shafaati nee na baraxlu sama weera maa ko moom te yàlla moom lépp de waaye lépp lu mu ne maa ko moom rek loola am na daraja am na dayoo bam naan wa anna al masajida wa anna al masajida lillaahi jumaa yi yàllaa ko moom mu ne yàllaa moom fépp moo moom lépp waaye su ko seppee nag ci li moom ne maa ko moom loola day wane ne la mu moom tam lu tedd la kon shaabaanu shahri chaabaan sama weera fa man saamahu li mahabbati képp koo xam ne woor na ko ngir sopp ma wa ngir sopp yàlla rek moo tax nga woor ko ak jëfe ndigalam wajabat lahu shafaati na xam ne sama sama ràmm war na ca kon képp ku ko woor ngir sopp yàlla sunu boroom dana ko dana ko ràmm euh, kon daal weeru koor mu ngi noonu mi ngi ci bunt bi mi ngi nuyoo weer la woo xam ne nag li ci xew ci ay ngëneel lu bare bare bare xam ngeen ne alquranul karim ci weeru koor la jëkk wàcc xam ngeen ne xare badar tam ci weeru koor ci la xewe kon weer la woo xam ne bu ñëwee bu kenn yaafus bu kenn jàpp ne booy woor rek dara waratu la mënoo ko boole ak leneen déedéet saxaaba yi dañ ko boole woon ak xare badar euh, fatxu màkkatanam ci weer ci weer wi la xewe woon kon yiñ ko mën a booleel euh, dafa bari kon bu ñëwee nag dafa war a tax nit ñi gën a laxasaayu gën a góor góorlu waaye duñ ca yem képp jàpp ne ku ko def rek euh, xadd nga kaaba ka sooy woor nag dalay fàttali démbi lislaam dalay fàttali ne lii ma doon defkat moom la ku de ku tedd ko doon def alayhi salaatu wasalaam lii may def Abu Bakar ak Omar ak Ousmane ak Ali ak saxaaba yépp moom lañ doon def lii may def sëriñ bu mag bi moom la doon def ak mag ñi nga xam ne moom ngay ñoom moom ngay ñoom ngay dégg seeni tur lii may def loolu lañ doon def kon nga xam ne kon yaa nga ca yoon wa yaa nga ci yoon wa te ci yoon wa nag bañ a geesu bañ a yox yoxi rek mooy li xam ne moo ko moo ko war xam ne koor jaamu la koo xam ne tuyaabam kenn xamul nu mu toll ndax yàlla moo ne illa saw fa innahu li koor moom sama mbir maa xam nu ma koy fayee te wax naa léegi ne sooy defal yàlla da ngay def ni nga mane ak ni nga toll bu lay fay dalay fay ni mu mane ak ni mu toll nañu xam ne tam kuy woor bu ñu demee bay dugg àjjana dañuy ber ñi doon woor ñoom fa ñuy jaar ñoom rek ñoo fay jaar euh, kuy kuy tàbbi nag feneen kuy jaare feneen moom moo xam waaye kii woor moom ñoom dañ leen di ber fa ñuy jaar ñoom rek ñoo fay jaar nañu xam ne bokk na tam ci li ñu mën a jànge ci koor mooy day jàngale muñ ak gore ndax ku munta muñ doowoo ndax xiif ak mar euh, dafa dafa dafa baax waaye doonul lu neex neexul dafa baax waaye neexul kon lu naqari nag soo ko ree def da ngay muñ waaye day jàngale ngor ndax wéet gore wéttili ko gore loo sant sant ndaw ak loo xiif xiif ak loo mar mar ak loo wéet wéet da ngay gore ndax dangay xam ne ki nga ko séqal amul kumpa muy sunu borom sunu borom mi ngi jàkkaarloo ak yow kon soo wéetee ak soo wéetilikoo moom mi ngi ak yow kon dalay jàngal euh, muñ waaye dalay jàngal wéet gore wéetiliku gore dalay jàngal jihaadu nafsi ndax nit ki xeex ak bakkanam lu mu yóotu jot ko ngërëmul yàlla kenn mënu ko am te da da deful jihaadu nafsi da ngay xeex ak sa bakkan ba not ko te kii woor day def jihaadu nafsi day jàngale ne tam jullit yépp benn lañu mën nañoo wuute mën nañoo werante waaye bu ñu xasee um ñéppay woor fa jant bay fenke ba fa muy soowoo ñéppay woor nga xam ni kon ñii woor ñii ñépp kat ay bokk lañ li ñu bokk mënuñu ko séddoo day jàngale tam ne kii woor day am yërma yërmaande ndax ki nga xam ne day añ di reer di ndékki du xiif kon du xam metitu xiif waaye soo wooree ba xiif da nga xam ne am na ñoo xam ne ci lii la ñu dëkk am na ñoo xam ne bu ñu añee du ñu reer am na ñoo xam ne bu ñu reeree du ñu añ am na ñoo xam ne dañuy goobar jaasi dañuy togg añ def ca reer yooyu yépp nag soo dee woor di xiif dalay jàngal ne kon am na ñoo xam ne dañuy dëkk ci xiif nga mën leen a geesu kon daal koor njariñam kenn xamul lu ñu toll yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm te buñ ci eggee mu may nu kàttan bu ñu ko wooree te suñu ko wooree yàlla na ko nangu yàlla na nu yàlla sàmmal sunu kilifa gu mag gi ne ci sunu kanam dolli ko wér guddal fanam mottalil ko ay naalam ak yéeneem te lépp lu mu lu mu jëf yàlla defal nu tawfiq ban ànd ko ak moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 الفلاح الحمد لله الرؤوف الرحيم ذي الطول الواسع والفضل المدرار العزيز العليم نشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه alayhi wa ala alihi wa sahbihi al axyaar salaatan wa salaaman muttasili dawaami maa taaqaba alleylu wannahaar أما بعد فيا أيها الناس هذا شعبان قد استقل راحلا فكأنه ما كان وهذا رمضان قد أظل قابلا وكأنه أيضا قد انصرم وبان fa baadiru raximakumullahu bil acmaali saalixaati maa dumtum fi qaydil xayaat wajhadu anfusakum fi tasxiixi acmaaliha waqtanimu fadaa'ila shuhuuri cinda iqbaaliha faqad kaada yaqudumu aleykum qaadimun kabiirul qadri washaan wa sayazuurukum qariiban zaa'irul xayri wal ixsaan وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن wa shahrul karaamati war ridwaan wa sayyidul awqaati wal azmaan wa xayru shahrin istahal ala ahlil iimaan shahrun tunaadiikum fiihi rahmaat min qadiimil ihsaan وتصهد فيه الشياطين ومردة الجان وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران شهر نال على الشهور المرتبة العليا ونزل فيه القرآن إلى سماء الدنيا فحافظوا رحمكم الله على أوقاته وتعرضوا فيه لرحمات ربكم ونفحاته وفي الحديث من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ على ما ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله الفصول وأغرق في بحار جوده وإحسانه الأفكار والنقوب نشهد أن لا إله إلا الله العلام الغيوب ومالك دماع ومالك دماع القلوب ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الكرام وصحابته الأئمة الأعلام أما بعد فيا عباد الله شمروا فإن الأمر الجد شديد وتأهبوا فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن السفر بعيد وخففوا أثقالكم fa inna waraakum aqabatan laa yaqtauha illa almuxifuun saaricu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamaawaatu wal ard uciddat lilmuttaqiin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فسارعوا عباد الله فهذا أوان المسارعة وراجعوا التوبة من ذنوبكم وهذا زمان المراجعة واعتبروا وفقكم الله فقد حق لكم الاعتبار وانظروا بعين الفكرة والاستبصار واعلموا أن شعبان شهر تشعب فيه الفضل والامتنان شهر توبة من ذنوب وتنوير للقلوب شهر تزكية الأعمال bifadlillahi almutaal shahrun adaafahu ila nafsihi nabiyu almustafa wa kafa bi idaafatihi sharafa qaala alayhi salaatu wassalaam shahru shahru sha'baanu shahri wa man saamahu li mahabbati wajabat lahu safaati yaxfirullahu lana wa lakum wa li jamiil muslimin amin allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allah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 سمع الله لمن حبنا ولك الحمد الله أكبر الله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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله يا الله ربنا ولك الحمد الله asalaamaaleykum. asalaam.